Yusuf tam mbokk bis ni tey nekk na jirim ndaxte jirim mooy koo xam ni waa baayoo lañ koy tuddee sax baayoo mooy ku ñàkk yaay waaye jirim mooy ku ñàkk baay waaye mbokk yi xam ngeen ni génn àdduna sa yaay génn àdduna bàyyi la fi loolu metti la nee na ay sama yaay nee na Raxiil nekkoon na ku sama wéttal waaye teel naa dem nag teel na ma fee bàyyi. yàlla nga dimbali ma ak muñ. maa lay ñaan nga dimbali mu mën a muñ ndaxte sama soxna si ma tàqalikool mettit la ci man ndeysaan ay sama yaay waay Youssouf a ngi woo yaay rek waaye mbokk yi gis ngeen bàjjenu Youssouf mi ngi di ñëw moom lañ jële woon muy fa i xam nee waa Kanaan ñëw nañ de ah ñoom tardé nañu tardé nañu réew la kej bañ jële woon tardé na yeex naa ñëw ba soxna si génn àdduna ndeysaan garawlekat boobu lañu ñu jële woon waaye mu ànd ak it magu yaqub mi di baj eh, di bàjjan yusuf ñu koy faayiqa nee na ñëw leen ci xayma bi jàll leen ci xayma bi kii mooy faayiqa mbokk yi yàlla na jàmm wàcc ci yonent bi yàlla bi yow di na jàmm wàcc ci yow ah sama mag tarde nga waay tarde nga soxna sa génn na àdduna raxil dafa dee mun ko waawaaw génn na àdduna de mbokk xam nga ni wu jëm yi mu àndal ak yooyu kenn mënu cee rewle soxna soosu jàll ci biir nag ci biir xayma bi moom lañ doon kii pour mu rewle Youssou mu rewle waaye tardé nañu ay waay tuskare ñeel na ma waay ah, nattu day nattu day moo dëkk ak yonent yi façon nattu yi moom du ay waay xawma la wàcc suñu kaw tey waay ay waay natt wàcc na suñu kaw waay bokk yi jigéen ju génnaat na dafa métti ay waay sama rakk ji raxil waay waaw ñu ngi lay jaal ñu ngi lay jaal yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla xare aljanna ndeysaan nee na yow sama doom juddu nga ci diggante bu métti. yal na yàlla barkeel la yow sama doom ji na nee xale bi daal barkeelul dara nee nee na ko tu na ko tuddee ko doo doo doomu doomu natt tuddee ko ko tuddee ko doomu natt bi kii ni mu juddoo baaxul nee na ko bàyyi loolu ngay wax yàlla rek mooy rey mooy dundal kon wax jooju bu ko wax. waaw xale xale buy doog judd mu deful benn bàkkaar. maa ngi ko tudde Benyamin laa ko tudde mooy doomu ndejoor doomu ndejoor bi nga xamee ni doom ju barkeel la xam nga yonent bi salaa sallam wax na ni lépp lu def nañ ko defee ndejoor ndaxte ndejoor barke da ci nekk moo tax mu ni tuddee naa ko Benyamin mooy doom ji nga xam ni ndejoor la féete léppam nar a barkeel nee na yow Youssouf maa ngi lay jaal bàjjen ji mi ngi koy jaal mi ngi jaal Youssouf ndeysaan gis ngeen xabru baa ngi noonu ay sama yaay waay ay yaay booy yaay bul dem waay su ngeen loolu yonent bi moo ko digle bu ñu dencee nit nañu jël benn labin labin mooy benn brique def ko ci ngir man ko xàmmee waaye tamit bàmmeel bi ñu xaw koo yëkkati tuuti ngir ñu man koo ràññee man koo defal ay ñaan waaye lu bare bëri ñu bàyyi ci xel boo ñëwee ci bàmmeel da ngay ñaanal ki génn àdduna kañ fa denc waaye doo ko ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ala inni qad nahitukum ala anni nahitukum ziyaratul xubur ala fa zuruha aw kama qaal tere woon naa leen ngeen di ziyaara ji bàmmeeli waaye léegi nag dee leen fa dem fa innaha tuzakkiruhumul mawt aw tuzakkirukumul mawt ndaxte daf leen di fàttali dee kon da bàmmeel moom ziyaare ko lu am solo la dégg leen li wax mbokk nee na bàjjen sama yaay sama baay de déggoon naa mu daan wax ni yàlla bu bëggee ab jaam daf koy jële ci àdduna yóbbu ko àllaaxira mu ni maa ngi ñaanal sama yaay yàlla na ko yàlla dëggal dëkkal àjjana ji gën a yaatu maa ngi lay ñaanal yow Youssouf yaag sa baay yëpp yàlla euh, may leen ak muñ mu ni waaw bàjjan ndax du àjjana moo gën a moo gën a àdduna bi. أنت تعي أكثر من سنين maa ngi lay ñaan yàlla aar la yàlla musal la. أنا أطالع في وجه الحسن هذا الطفل وفي روحه الوثابة وفي كلامه يجري على لسانه على xale bi waxam ju rafet ji xelam mu set mi. إن وعيه وفهمه man jàpp naa ne ëllëg mooy jiite njaboot bi. هذا شيء لا يصدق. ndaxte magam yëpp moo leen ëpp xel moo leen gën a yeewu. waa Sira ngi gaa ngay wax jooju nag daa mel lu ëpp tuuti bàjjen ji wax na lu ëpp. ngeen ko bàyyiloo wax yow sama mag li nga wax baaxul Youssouf ak mbokkam yi ñoom ñëpp a yem nee na ko waaye waxu Youssouf yi day àgg sama xol daf may fàttali lu bëri. dama bëgg li nga xam ne ñàkk na ko yaayam lépp rek mu nekk loo xam ni damay delloosiwaat xelam nee na ko man daal jaayante na ak sama mag Rahil. dina aar Youssouf aar rakkam ji loolu laa jaayante woon ak yaayam nee na ko la yaay loolu moom mënoo ko ndaxte mënoo ko yor yor say doom bàyyi ji nee na ko man nag du ma bàyyi Youssouf mu jóge ci samay bët ci sama rek ndax loolu ma yaayam dénkoon tamit hmm؟ mel na daal ku nekk yaa ngi bëgg xëcc Youssouf féete ci yow waaye da ngeen wax bàjjen ji mun ko bàjjen est ce àdduna bi àllaaxira al al est ce que moo gën àdduna mun ko ah mun ko est ce que natt gi yaa yaa yàlla teg sama wayjur yi jëlee sama yaay est ce du loolu moo gën mun ko ah kay daa mel ni nag gis nañu dëkk ba léegi nag Yaaqub agsi na ci dëkk bi nga xam ni mooy dëkku ay wayjuram dëkku maamam Ibra Ibrahim dëkku baayam Ishaq ñëpp it ñi ngi koy teeroo ko tatagal ña ngi naan qaafilatu Yaaqub ba ma nga nale xaafilatu yaquba ma nga ne maanaam caravane bi njëggu yaquba ma nga ne la di ñëw ah, yonent biñ doon teeru muy yaqub agsi na ci jàmm ndeysaan noonu it la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ni jógee na makkatal mukarram jëm madinatul munawwara noonu la ko waaye firib doon teero ñëpp ndeysaan di ko teeroo ko tatagal di ko tëggal ndënd yi di wax tala al badru alayna min saniyatin wadaa wajaba shukru alayna ma daa lillahi daa gis ngeen ku ci nekk yaa ngi yor sa ndënd waaye ñu xool ndax yonent nang na loolu ndaxte yonent xam Muhammad ñu bàyyi loolu xel di kon ndënd yi ñu ko doon teeroo boobu day doog a ñëw dëkk euh, ak seegul ca dëkk ba kon amul lu leen di tere wala lu leen di digal dafa bàyyi rek ñu teeroo ko ndënd yeeg tama yeeg yëpp rek waaye ginnaaw ba nag la leen ko tere waaye fii tamit dana fi gën a feeñ gis nga ñiy tëgg seen ndënd di teeroo yonent wi waaye yebal na waaja nee na ko dawal gaaw dawal dawal nga wax leen man kenn du ma teeroo ay ndënd ay ki tama ndaxte loolu yàlla bëgg ko gis nga borom dëkk ba kooku mooy ser village bi nee na leen nag arrêté leen seen dëkk yi kon su ngeen ko defee rek sëñ bi sëñ bi du agsi ndaxte loolu yenn saay seetaane daf cee dugg moo tax lislaam fenn la may ñu tëgg fa ay ndënd ca mooy bu fekkee euh, loolu ñuy wax mariage dafa am ñu koy yëgle bu ñu koy yëgle di wane diw maye nañ ko bis ni tey diw ak diw dagan nañ seen diggante diw ak diw tey seen ci diggante dagan na bu ko defee tëggoog rek tëggug yëgle la woon waaye du tëggug fecc ak sabar asadana bi qudumika ya islam dafay tere loolu nee na ñu ngi lay teeru di la tasagal te ñëw gi rafet na loolu ñun ñu xamal ni ñu bokk nañu yow tey suñu lépp waaye li la dal ci yoon wi ñun yëguñu ko woon yàlla yàlla may la ak muñ yëguñu woon ni sa soxna dafa gaañu yàlla mooy rey mooy dundal waaye ñun gërëm nañ dogal yàlla subhaanahu taala kii mooy borom dëkk bi mbokk yi mooy seeru village bi marhaban bi xurubikum ñu ngi leen di teeru di leen tatagal yal na yàlla barkeelal la ci sa doom ji doog a juddu muy Benyamin gis nga cuuraay laa ngoog ñu koy teeru yàlla na ngeen wàcc wàcc waay bu yomb yal na yàlla barkeel seen dëkk bi yal na yàlla barkeelal leen sa doom ji nga xam ne judd na juddu gu bees yal na yàlla barkeel ko noonu la day teeru gan rek gan moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dani akrimu dayfakum walaw kaana kafiran seen gan na ngeen ko teeru tatagal ko teral ko donte ab yéefar la ndaxte jullit ni muy terale ab yéefar yéefar mën naa dem ba gis ci ni ñu baax lañ mu dugg ci diine laqad zurta al makaan nee na ko fan la ñu denc sama baay Isaaxa dafannaahu xaytu qabru jaddina Ibrahima nabi nee na ko avant ngay agsi lañ ko denc ndaxte yàlla moo ne woon summa amaatahu fa axbara nit bu bu gaañoo rek nañ ko daal di denc fa ñu denc sama am Ibrahima fa lañ ko denc nee na ko yóbbu ma fa fañ ko denc ma yeesal sama kóllëre ak ñoom allahu yahuda raw bi waaw nee na ko waxal ñëpp ni leen nañu njaboot gi yëpp nañ ñëw ñu dem fa ñu denc sama ñoom baay ak sama maam ñu def ñu kii leen mun ko nee dañoo fi ñu denc Isaaq lañ bëgg a dem ziyaara ji léegi yére ba ma la dénkoon fan yee la indil ma ko mbokk yi loolu njàngan mu rëy ngi ci gis ngeen kii moo war a doon si yonent bi moo war a nekk xalifa bi waaye ñëw na fekk ñu denc baayam lu tax ñu denc baayam laaj na ko ko xa ne ko waaw fan ngeen fan lañu kii mun ko denc nañ ko bu yàgg waaw ndaxte yàlla moon ne suma amaatahu fa axbara nit ki bu gaañoo nañ ko daal di denc ndax bu ñu ko fa tegoon di xaar suba wala ginnaaw suba wala di xaar mu ñëw mën naa yàqu daw dabaa ngi noonu nag foofu lañ ko denc kon bu dee amul benn illa benn gaar bu rëy rëy bu gaar nit ñi nit ku gaañu dañ ko war a denc ca saasa ndaxte loolu la yàlla digle ci alquranul karim mu nekk tamit bind boo xam ne nit ñi war nañ koo jàng bu baax a baax ndaxte bi salaa salaam neen lu ñu gën a gaaw ci denc gi rek yërmande yàlla di gën a gaaw ci moom. salaamullahi ala Ibrahim. bu dee it sofaan la tamit noonu. maa ngi ñaan yàlla mu dugal leen aljanna gis ngeen ndeysaan mi ngi ziyaare ay waajuram foofu la ñu denc Ibrahim Ismail Ishaq ndeysaan gis nga day ngi noonu di ziyaare ay waajuram asalullaha an yudxila as-surur ala qalbay nabiyayhi Ibrahima wa Ishaq inna ahlal yatanaana Ibrahim ak Ishaq maa ngi ñaan yàlla dugal ci seen xol yi mbégte ci ziyaare gi nga leen ziyaare waaye génn gi mu leen génn tamit ci lëndëmu euh, yéefar yóbbu leen ci leer ngëm yàlla kooku tamit ñu ngi ñaan yàlla ba nee ko sama ñaari sa sa mag yi sa sa way juri day gis giñ la gis fii kontaan nañ ci lool yëgal ni tey yaay yonente xeet wi seen ginnaaw waaye tamit seen drapeau bi ñu yoroon mooy kilifteefu yonente gi yaa ko yor tey maa ngi ñaan yàlla seen seen seen ruux yi yàlla dugal leen àjjana ca it euh, mission bu rëy bii muy yonent gii nga xam dafa dis gan yàlla na ma ko yàlla oyofal ba ma mën ko yenu noonu it la ñuy ñaanale suñu way jur Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck yal na ko yàlla tamit a dëgg yàlla lim ko denk mu teel ko ko mu woyof toll ndaxte ndénkaan moom dafa rëy lool mbokk yi lii mooy yére bi nga xamee ni moom la fay Seydina Ibrahim soloon ba mu fi jógee mu dénk ko Ishaq Ishaq bi mu gaañoo tey jii yow yaa koy war a donn yaay yaay donn yére yonent bi بحفظه وصيانته nee na ko sama yére bàyyi man maa ko dencoon ndax ñoom ñaar ñoo bokk benn bàyyi أديت إليك الأمانة أدفعه إليك jox naa la kóllëre gaa ngi noonu أبينا ndénkaan loolu ma sama bàyyi dénkoon jox naa la ko tey إلى النبي الذي بعدك nee na ko nag na nga ko téye bu baax waaye bis booy génn àdduna yonent la war a doon na nga ko ko dee na nga na nga ko ko jox gis nga xale yi ñu ngi xalaat ku nekk yaakaar nga ni yaay doon yonent ba waaye ñu bàyyi xel tamit bu góor gaa ngi noonu ndeysaan sol na yére nu booga ba génn ñëpp a ngi koy ñaanal yàlla na yàlla barkeelal la yow yàlla bi yàlla na yàlla barkeelal la yàlla na yàlla bi yan bi yàlla na woyof allahu akbar loolu mu la jullit war am ndokkeelante rek ku ci nekk bu amee mbégte ak kontante nga ndokkeel ko bu amee nattu nga jaal maak waak ahlu an kanaan yëpp ñi ngi lay tàllal loxoy jaayante fa seen jaayante ak yow ñi ngi seede ni yow yaay yonent yàlla bi yaay jottali am njàngaleem ñi ngi lay yal na yàlla barkeelal yow yonent yàlla bi ñëpp jaayante nañoo moom léegi nag xool leen yahuda mi comme waxoon nañ ni yére bi bu Yaaqub gaañoo yonent kiy topp ci ginnaaw moo koy donn xalaat xoolal li muy xalaat moom moom gis nga de mi ngi noonu di xalaat ni moom moom moom mooy nekk yonent bi après. ba xam nga kii doon yére bi yaa ngi koy gisam. nee na lii waxi caaxaan la nee na ki ëpp doole rek moo koy doon yonent bi moom. juum ngeen de. ki ci gën a muñ ci ngëm yàllaam gën a takku ngëm yàlla mooy dennu ab yonent waaye du borom doole allahu akbar cey moo tax doon ko moom doon ko daa neex waaye doon ko doonoo ko wërul dara yahuda mi nga gis ni yaayam daanaka ci ay pexe la nekk sàkkal pexe yusuf ak yu mel noonu bu doon ne yonent bii moom dana yéeme gis nga day mooy lañ leen waxoon rek walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi iman alxaqna bihim zurriyatahum wa zurriyatihim wa ma alatnahum min amal min shay comme na ko yàlla waxee nii ñi nga xam ne dañoo nekkoon ay nit yàlla yu baax nekkoon ay jaamukati yàlla gëmoon yàlla lool bu nee ba génn àdduna seen doom yi nga xam ne topp nañ seenu yoon topp nañ seenu njub yàlla nee na danaa yéege seen doom yooyu ci martabab seen baay yooyu donte sax defuñu lu tolloog la seen baay seenu pastef dana leen yóbbu ba yàlla yéega leen dara ja ndaxte jamono ju gën a jege yonent yi rek ñooy gën a baax jamono ju gën a jege àdduna bu tukki ñoom ñooy daanaka ñooy gën a nekk ci tànkute moo tax ku ci nekk sa ngëm yàlla moo lay yóbbu ci martaba ya nga àgg waaye gis ngeen soona saa ngi noonu di jox xale yi lu ñu lekk lay yaa ngi noonu toog ak doom yi la yaay mi waxoon nañ leen mooy rakku raxiil gis ngeen xale bi xale bi juddu moom moo yusuf yëpp ay baayo lañ bayo mooy ku ñàkk yaay léegi la ci war yëpp tante ji moo koy def waaye bàjjen ji moom dafa bëgg ñu jox ko xale bi ndax man dama xiif yaay xanaa doon jox ñu lekk ana lekk gi dañoo bëgg a lekk daf leen ndànk lu ngeen di def nii lu leen dal daf leen ndànk léegi ma jox leen ngeen lekk tafaddal jëlal hmm? xale bi de daa mel ni xeeb na liñ ko jox ماذا أصابكم؟ لما لا تأكلون؟ lan moo leen dal lu tax الطعام قليل lu tax lekku leen yaay lekk dafa tuuti li ñu jox dafa tuuti اسكت يا ولد وكل li nga jox Yuusuf moo ëpp li nga ñu jox fuuf ماذا تفعلين؟ sa làmmiñ mun ko ah la yaa bàyyi yooyu ngay wax bàyyi leen jox leen rek سأحمل بنيامين xale yi nee nañ lekk gi dafa tuuti li ñu jox Yuusuf daal moo gën a bari bàjjen ji nee na ko bàyyi la ma jëlal xale bi nga toppatoo xale yi ñu lekk nee na toppatoo xale yi def li leen war ci ñoom dafa metti bàyyil ma jàppale la ci waaw gis nga moom rakkam ji Raxiil magam ji gaañu génn àdduna Raxiil ni muy toppatoo doom yi sax daanaka toppatoo ko doom boppam loolu nag yërmande la man mii yàgg naa bëgg a am doom yàlla joxu dogalu ko yàlla dogalul ma am doom dégguma yaay ba léegi te maa ngi sama fan yu mujj maa ngi lay ñaan li ma lay ñaan nga may ma ko mooy nga féetali ma Youssouf mii féetali ma ko te nga sa xel dal ni danaa ko fonk danaa ko sa danaa ko toppatoo baax a baax. xoolal la yaa coono yi muy daj yëpp. pour toppatoo xale yi. waaw kon li fi des daal mooy nga fasanteeg man ko la rek dénk ma xale yi. la tasbir in ana ko man nan laa nan laa mën a muñe loolu mënumaa taxali koo xale yi wa in ana lam atika bihi kulla yawmin li tarah fastarja'hu minni nee na ko su ma demee moom sama kër bis bu nekk danaa la ko indil nga xool ko adxalu alayhi fi al-'atf nee na ko xanaa gisoo ni may dugale ak cofeel ci xale bi bis bu nekk may ma lool rek may ma ma dugal mbëggeel gu wér ci Yuusuf ndax jafe-jafe yi mu nekkoon mu fàtte lu bëri bëri liggéey dafa yaayam te nga dalal sa xel ni dinaa dugal mbégte ci Youssouf mi nee ko yow Faayixa waaw man nag dama kóllëre woon ak sama rak sama mag ni dinaa toppatoo jirima mi dinaa toppatoo xaleem yi nee na ko Rahil lool lool nag nga wax moom ba mottalil sa kóllëre rek mun ko da ngaa yaakaar ni sama doom yu bari moom dana tax du ma sàmm Youssouf mun ko déedéet du lool de. فتغفلي عن سائر أولادك ne ko damay bañ nga féetewu Youssouf ba sàggane sa doom yi ci des Youssouf kaay toog fii ndeysaan Youssouf ñëwal toog fii sama wet. يسرك أن تقيم عند عمتك فائقة. بلى waaw waxal Youssouf bu dee bu toog sa bàjjen. ndax bëgg mu ne waaw waaw faayiqa ka yaay ju baax la. aywaay sama doom ju baax ji waay lépp lu ma man dinaa ko def fexe ba cofeel ak mbëggeel ma def ko ci yow sant naa la yow sama mag maa ngi fasante ak yow kóllëre ni dinaa dinaa ko téye dinaa ko sàmm ko fi ma sàmm sama rox bi hal hada yani annana demal léegi yóbbaale ko le temps may waxtaan ma ma gis ak sama xalaat nee na ko ah kon bàjjen li nga bëgg wax daal mooy Youssouf duñ ko gisaat ah, ah kay Youssouf kay bis bu nekk dana ñëw ci yéen bàjjen ba dinañ mën a foog Youssouf comme nañ doon foog moom mu ne waaw waaw dem leen ngeen foog. axtarisu. fa leen fan ngeen jëm yéen lekk gu leen toog leen ba lekk ba pare bàjjen moytu leen a gaañu nag moytu leen a gaañu. moytu leen a gaañu ndeysaan ñi ngi noonu di fo mbokk gis ngeen Youssouf fi mu nekk nii ñëpp ko bëgg ñëpp ko soxla bàjjen jaa noonu jox nañ ko ko saa yu xëyee rek nekk eh, bu xëyee sang ko ba mu set daal di indi ay mbokkam xool ko mu delloowaat ndeysaan ndaxte moom yàlla dogalul mu am doom moom la wax léegi ni yàgg naa bëgg a am doom waaye yàlla dogal ko benn yoon. kon dama bëggoon yow Yaaqub nga jox ma sa doom ji Yusuf mu féete woo ko di ko xoole yaayam waaye tamit fexe ba dootuma tàqalikoog moom nee na ko nag bis ne tey jox naa leen kii bi jur gi gàddu leen ko fonk leen ko man tey du ma mën a ñëw tey ci àll ba nee ko ah ñun bàyyi nag dootuñu ay xale na sa dal jur gi moom danañ ko sàmm. na sa xel dal asalaamaaleykum waaleykum salaam yal yow suñu bàjjen yéen tamit yal na jàmm wàcc ci yéen dem leen ci kaaraangeeg yàlla dem leen sàmm ah xale Youssouf ñëw na maam ñu ngi lay nuyu bàjjen ñu ngi lay nuyu motu leen Youssouf nag ndeysaan xoolal xool leen tante yi mbokk yi. yal na jàmm wàcc yonent yàlla bi. من يقول إن اليتم مؤلم طوبى لحال الأيتام ñu ko ay waay ay jirim waay ay waay xale xale yi ma daal jirim yi daal yërëm naa leen xoolal rek nee na ko bu dee ji bu dee jirim dafa neex kay lu leen teree dee kon yéen yéen ba yéen ba bàjj ba yaayam gaañoo ba léegi amu leen benn cofeel ci moom ne ko li ñu wax jubluwuñ ci lu ñaaw de. بمثابة أم حنون ليوسف وما nee na ko li ñu bëgg a wax rek mooy yow da ngaa jàppe Youssouf comme comme sa doom rek lu rafet rek lañ ci jublu nee na ko jëru ngeen wax wax ju bari li ngeen bëgg a wax yëpp xam naa ko lan moo leen dal yéen sax bëggulu leen sax Youssouf ma dugal ak ak cofeel ak mbëggeel ci moom ah yéen yaayam gaañu na may leen ko jàmm xanaa bu ngeen da ngeen waroon sax fexe ba nekk yaayam taxaw ci wetam ba Yuusuf du xalaat yaayam waaye ngeen nekk ci fiiraangeeg rek yaayam dee ngeen des ci loolu rek yéen feebar ngeen waay. jaay. عليك أن تكوني حذرة أنت تبالغين في nee na ko sama mag maa ngi bëgg na nga moytu daal parce que wax yi ngay wax yi daal di wax yi ëpp yi daal bëgg naa nga nga moytu ko bu baax daal. ndaxte dañuy dem ba euh, magam yi danañ dem ba iñaane Yusuf man gis naa ni Layla mi ngi koy toppatoo kay Seyid Yusuf ñoomale nañ leen kay baax na man na li ma jaaxal mooy ñoom ñaar lan moo tax ñuy fiire seen yaay kii Yusuf rek loolu baaxul yow yaa ngi bokk ci xeetu yonent nit ñu baax. maa ngi ñaan yàlla mu aar Yuusuf musal ko ci iñaan ak ñi nga xam ne dañoo iñaan yal yàlla aar ko musal ko ci loolu. man lu tax daal xaw li tax sama xol daal dugg ci Yuusuf daal. may jaaxle daal sama xol daal day fees fees goo xam ne daal day lool ci Youssouf loolu jaax na neen ko ah man daal dama bëggoon sax yóbbu Youssouf ndax daa mel ni daa mel ni xiif na sama soppekaay ba leen bàyyi ji da koy bëgg a foon waaye xale yi commencé koo xool hmm, bàyyi na ko ndeysaan dafa yéeme bëggul dara ndeysaan lépp loo xam ni dana waral xale yi xaw a am jaaxle su bëggee foon Youssouf rek gis xale yi ni ñu koy xoolee rek gis nga xale yi dem nañ seen yaay. ummi. allahu akbar moo tax borom ko daawara mooy. bàyyi yaay xanaa gisoo yére yére yu rafet Yusuf sol mu ni bàjjen moo ko ñawal bàjjen moo ko ñawal yow bàyyi di nga ñu ñawal yére yu mel noonu xale yaa ngay waxtaan nag mu ni ah sama bàyyi daal yaakaar naa li ko teree ñëw ci kii bi daa am lu am na lu xew mun ko lan la mun ko Yusuf moo tax ñëwul topp ci Yusuf rek. moom daal dafa bëgg a def ci wetu Yuusuf nee na bàyyi loolu la ñu ne ne sama bàyyi ci yonent yàlla yi la bokk dafa war a des sa dëkk ba defar nit ñi dellu leen ci yàlla looloo tax ñëwul. neen xanaa gisoo Yuusuf yére yu rafet yi mu sol ah nee ko loolu baax na lool delloo ñëpp sama bàjj na ko jox kay wax dëgg yàlla loolu nañ ko bàyyeen tamit de nañ nekk ay mag ca bañ a nekk ay xale affaire yooyu nañ ko bàyyi xale yi raw biin yahuda ñëw leen du ngeen ñëwam ñun dañoo jàpp dañu liggéey ah daamel ni nag mbir mi commencé na àgg ba ci xale yu góor yu mag yi nag la mbir ma lu jëm ci wàllu soxor geeg ñaan geeg fiiraange gi yamatul seen yaay. ah mais daal daa mel daal dee dee gi nga xam ne moom la yaayam dee moom Youssouf rek daa mujj daal bàyyi féetewoo Youssouf rek mel ni occasion la ci moom. dafa ngi noonu ak bàjjanam so yéeral solal yére bi bàjjan moom day ñëw di ko jox rek xale yi commencé nag naan wax naan yaay daal li suñ bàjjan di ñawal Yuusuf danga war a ñawal lu mel noonu te xamuñu ni ndeysaan yaayam néew fi kii moo nekk yaayam wax dëgg yàlla dama soppe xaaral ma ñëw intadir huna xam nga lii ma yor lan laam هذا حزام أبي وجدك إسحاق lii mooy ceinture gi nga xam ni sama baay Isxaaq moom la yoroon لطالما تمنيت أن أدفعه إلى بقية النبوة من بعد أبي bëgg naa ko bëgg yàggoon naa ko bëgg a jox ki nga xam ne moo nar a donn samay samay baay ca maa ca mooy yonent bi xeet wii ca maa ngi ñaan yàlla nga nekk yonent bi nee na ko dama kaa bëgg a wattu de dama kaa bëgg a denc sama bàyyi dénkoon ne ma wóoloo na ba dénk ma sama yére Ibrahima ba waaye yére ba jox naa ko Yaaqub waaye xizaam bi mooy ceinture bi yow laa bëgg nga féetale ko waaye sànq de bu mu réer waaye damay ragal ñeneen ñeneen ñi seen xel nekk ci de ñan nga bëgg a wax ma sama mag yi sama mag yi seen xel dal na ci nekk de boo mu joxee ceinture bi yaay maam xalaat yooyu daal bàyyi ko jëru nga koy xalaat yooyu. faqad ta'axxarnaa ala maw'idi jalsati al-wa'd falnadhhab. nañ dem heure bi ma bi ñu waroon dellu yàgg waroon toog ak sa baay tardé na nañ dem ndaxte maa jaayante woon ak ni ko saa yoo xëyee suba rek ma indi la nga nuyu sa waajur nuyu say mbokk. kon nañu respecté heure bi respecté rendez-vous bi léegi mbokk yi mi waxtaanak ak ñëpp nag taalibe ak ñëpp nee na tom bi waxtaan waxtaan ak yéen mooy ñaan. هو ألا تطيق مفيدة الآخرين mooy la ca loxo yi nit ñi nga bëgg ko danañ koy tudde it mooy nga ñaane nit ñi seen i mbégte maanaam yéene leen ak ñàkk ak dund gu xat loolu tamit danañ firi iñaan est-ce que kan kan ci yéen moo mën a wax yenn jikko ci jikko yi ku iñaan ñëpp a ngi di tekk de kan moo mën a wax jikko ku iñaan nan lay mel xoolal ndeysaan tànta mu ne waaw ceinture bi Youssouf takk est-ce que du ceinture bi yi nga xamee ni ceinture bi yonent la lan moo tax mu jox ko Youssouf ca nee nañ yonent bi bi nar a bi ñëw ginnaaw moo ko war a moo ko war a yor. nee na ko est-ce que du iñaan mooy firi nit ki li ci loxoy nit ñi nga bëgg ñu ñàkk ko. nee na ko wax nga dëgg nee na kon li nga tontu loolu mooy iñaan nee na iñaan daal mooy soxor ak ak bëgg li ci loxoy nit ñi ñàkk nga jël ko waaw mooy li moo tax sama papa bëgg Yuusuf bëgg yëpp. nee na ko mbir yi nit ñi dañ daan am ay maqaama yu mag a mag waaye nag nga gis ku am maqaama bu rëy jékki-jékki rek daal di iñaan nee na ah tey Yuusuf du tontu moom laaj na beneen laaj. waa ji nee na Yuusuf du tontu de. ينبغي أم لو خم ألا يعرف الحسود أن هذه الدنيا إلى زوال يوما ما من كو خنا باي خنا خموني كو إنيان خنا كي إنيان خنا يجو لي أدنى ريجيخ أحسنت الجواب والله رفتال لو دغ لولاي تونت بي تونت بو جوب بي مو موي تونت بي ليغا واخ موي تونت بو جوب كي إنيان يجو لي أدنى بي داي جيخ تاك والحسود lam doon iñaane ne ci loolu jot baa xam ngeen ni lépp lu baax du dal ku ku iñaan du am lu baax ki iñaan tamit du góob lu dul lu dul toskare rek ñun ñëpp dañuy tuxu law adraka ku iñaana ku ñu iñaana ñoom ñëpp ñëpp dañuy taxawu ji yàlla suñu borom subhanahu wa taala bi diqi ufuqihi dunyaah wa ma fiha min niamin ila jahimin la baa xam ngeen ku iñaan ay mbiram du ubbeeku mukk ay buntam du ubbeeku allahu akbar kon gis nga thème bi mu doon joxe tey ci waxtaan gi mu doon waxtaan ak njaboot gi ak taalibe ak ñëpp mooy wàllu iñaan lañ ci yàlla musal أوليس ذوو الأمهات يقومون بإعلان من ناحية تدلله العمة فائق وتلبسه أجمل الثياب ومن ناحية أخرى تجلسه أمنا في رجلها وتطعمه مرتب الطعام dama yaakaar ni jàng na de ndaxte fayi xa fi mu nekk nii suñu bàjjen yére yi gën a rafet lay solal Youssouf ñoom ñëpp sama baay dafa gën a bëgg Youssouf gënale ko ci ñun nee na ko déedéet du loolu kii mooy kii mooy kii laaw yi moo ci gën a baax ndeysaan Yuusuf dafa rafet Yuusuf dafa baax Yuusuf dara néew ci ñun ñëpp bëgg nañu Yuusuf waaye nag ñun ñëpp bëgg nañu Yuusuf waaye wax dëgg yàlla waaye nag suñ sart bi mooy suñ bàyyi nag dañu war a yemale waaw lan moo tax mu jël euh, ceinture bi suñ maam daal di ko koy jox Balha nee na seen tur googu yonent ndono yonent yi la ca yonent yonent bi war a nekk yonent xeet wi ginnaaw sama baay kooku mooy doon seen tur gi. waaw nee na ah lan moo tax kon sama bàjjen jox ko ko laaw yi nii leen buñ delloo ca kër ga ñu laaj ko ko rek buñ delloo ca kër ga ñu laaj lan moo tax <laughs> seen gi nga xam ne seen turu yonent la yonent wu xeet moo ko war a doon ñu jox ko kii Youssouf léegi nag gis na xale yi moo affaire doole rek léegi ñu seet kan moo gën a mën a yëkkati xeer bi. ci seet ku mën a yëkkati xeer ba ca kaw a kaw ah aywa koo nga mënta dem saa yi amoo doole de aywa na jóg yëkkatil amoo doole gis nga xale yi li discuter mooy wàllu ceinture bi nga xam ni ndonoon yonent la lan moo tax seen bàjjen jox ko Youssouf. ca xam nañ ni ki nara a nekk yonente xeet wi ginnaaw seen baay moom mooy moom seen tur googu kon ñoom bu doon ci wàllu xel la xalaat danañ xam ne Yuusuf dëggantaan moo koy moom mooy nekk yonente xeet wi waaye seen xel yi mu doon waaleykum salaam ñu ngi leen di nuyu yal na yàlla aar leen fu ngeen jëm dugal nañu kii bi yëpp ci gétt yi xar yi léegi dañoo bëgg a sama bàjjen dañ ko soxla ñun fa lañ jógee lu ngeen fa lañ jógee nii seen bàyyi daal bu ngeen bëggee xam li xew ma nga ca seen kër bàjjen Youssouf la seeti woon su ngeen demee ngeen xool nag na muy jàpp Youssouf ak na koy fóone di ko topp toowee dema leen ngeen gisal seen bopp seen bàyyi ma nga fa mais lan moo xew sama kër bàjjen ah lii lii lii jafewul daal nañ dem xool lu xew tey gis ngeen jigéen ñi duñ néew na lu ñuy defar loolu ndeysaan lan moo leen jàpp ñoom ñooñu feebaru feebaru iñaan rek bokk na ci feebar yi gën a bon ci doomu aadama ndaxte lim lay yàqal dafa bari te ngeen tem bi ci yàqu doon waxtaan léegi xool leen sama bàyyi ni mu def Yuusu ni mu ko bëgg ak ni mu ko déedéet loolu du dara suñ suñ bañ nekk ay suñ bàyyi dañu daan def nii muy def yi ku baax la ne sa papa bi ñëw fi tàgguwul yëful def dafa ñekk rek ñëw fi bàyyi leen seen waxi caaxaan waay nañ dem ñun li tax a jóg nañ ko laaj mooy suñ ba mbirum seen tur nañ nañ ci wax waaye buñ fi nekk di wax affaire Youssouf gis ngeen seen papa gis na leen ñu ñëw comme que bëggul tamit seen xel xaw a ñaaw wàcc na Youssouf toujours rek moytu rek ndeysaan moo tax njaboot bu la ko yàlla joxee loo gën a mën moytu moo gën. maaleykum asalaamaaleykum. sama kii sama xale yi tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen fay. yàlla musal leen aar leen. kañ ngeen jógee ci àll ba. adxalna alqati'a ila alhadira wa ji'na likay dugal nañu jur gi ci gétt yi waaye dañu ñëw pour waxtaan ak yow ngir lan dañuy bàj laaj suñu bàjjen moom lañ soxla awalaysa hada bàjjen xizama jaddina ceinture bi Yuusuf yor est-ce que suñu maam Isxaaq moomu ko kama taqul ah kay moo ko moom lakinahu ma'a Yuusuf as-saghir li yanasa bihi dama ko jox Yuusufu ndaw mi ngir mu wettali ko bàjjen ni maa ko jox ngir mu fet wettali ko ko waaye tamit fàtt ngir jafe-jafe yaay mu fàtte ko waaye sama bàjjen ne waaye day yonent bi moom centre moom centre yonent la mu ne waaw man maa yonent bi أعطيته ليوسف لي sama baay sama ndoonoy baay la man maa ko moom moo tax ma jox ko Youssouf nee na ko Balha ak ak Zalfa ñoom seen iñaan gi ba tey du deñ seen yaay dee na iñaane nañ seen yaay ba mu dee kay ah nañ ko nañ ko bàyyi. abi. yooyu ngeen di wax amul benn solo. yaqulu Yahuuda annaka tuhibbu Yuusufa akthara minna. Yahuuda nee na yow yow ni nga bëggee Yuusuf bëggee woo ñu ko mun ko loolu wéru. وقد أها كي يعني يعني دا نغا سيت يوسف توك شك كو تكاو كنتم صغارا في مثل سني ين بغير نك اي خلق انا داوما انتك سمكو جئت لزيارتكم أحبكم جميعا ولا أفرق بينكم yéen tamit bu ngeen a soriwoon danaa ñëw ziar leen ci yéen ñëpp laa bëgg du ma tàqale kenn seen diggante wax ji daal bëggatuma ko ñëw di ma wax wax wax yi ngeen wax dara bëgguma ko dëgg man daal ay góor laa leen jàppe woon dénk leen lépp waaye yéen da ngeen yor melokaanu xale yu ndaw yoo xam ne xamuñu dara kon ba ah, sama mag maa ngi dem gis nga day góor gi mel na ndeysaan gis nga dey loolu seen yaay yi dugal seen xel yi ah, yaa ngi nii jë ngay jël Yuusuf di ko teg say tànk di ko teg suñu kaw di ko teg sa kaw ah doo ñu teg sa leen yéen ñëpp du ngeen nekk ay xel loolu laa leen def du ngeen nekk ay mag ma leen teg sama omi na bàjjen sama baay ne ko daal bis ni tey bu mu ñeewanteeti ci man waaw ko lu tax mënu ko damay bañ sama mag yi mer mu ne ko déedéet yow yàlla dala xañ cofeelu yaay ba gisoo sa yaay gisoo yaay yuy tax sa wet di la tàpp kon waruñu laa xañ nag cofeelu baay donte ñàkk nga sa yaay gisatoo sa yaay gisatoo koo wéeru ci kawam gisatoo ku la teg ci kawam ci yaay cofeelu yaay googu yàlla xañ la ko kon waruñu laa say mbokk waruñu la xañ cofeelu baay nag Yusufa ngi noonu ànd ak bàjjanam ci àll bi di fo mu taxawee ko place yaay ndeysaan gis ngeen day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàmmaloo nañu jirim sàmmaloo nañu baayo koo xam ni xale bu ndaw la way juróom génn àdduna nañ ko taxaw dimbali ko ndaxte nee na kën kër gi gën ci kër yi mooy kër gu am jirim ñu koy toppatoo di ko taxaw waaye kër gi gën a yiis ci kër yi mooy kër goo xam ne jirim dafa nekk ñu koy doyadal di ko di ko di ko di ko sonal di ko euh, def yoo xam ne day day yëg ni amatul yaay day yëg ni tamit baayam dem na day yëg ni tamit amatul kenn ku ko taxaw amatul wayjur loolu yonent bi nee na kër gi gën a yées kër yi mooy kër yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xam ne dafay fat ay jirim di leen dimbal di leen taxaw man ak moom ka haatayni fil janna comme ñaari baaraam yi ni ñu dendee maa moom noonu la ñuy dendee yomal xiyam dugg aljanna allahu akbar bàjjen yi daa mel daa sonn bàjjen daa sonn ci dox bi mbokk yi gis ngeen yonent bi xaalis boobu mu wax lu am solo la nee na daal euh, gépp koo xam ne yaa ngi fat jirim di ko taxaw di ko dimbali maag ngi yow yowmal xiyaam ñooy lang ba dugg aljanna kon yàlla yàlla fayal seen seex boobu ak ñi mel ni moom nga xam ni seen daara loolu la fat ay xale jàngal leen diine jàngal leen quraan ca fayekoo leen dara yéen yàlla fay ko gën koo dëgëral wax dëgg yàlla liggéey bu rafet lay def moom Serigne Cheikh Mboup yéen yàlla gën ko dëgëral kon mbokk yi gis ngeen loolu ay jàngat la xam ne ñun ñëpp mën nañ ko cee jànge ni jirim daal ndaxte yaay dafa foor mu nekk sa nga koy bànneexoo loolu lu neex la waaye boo demee ba loolu amoo ko ñàkk sa yaay wala sa baay dem ki doon mënal dem ah. euh, la ca war daal mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo def ca kër ga muy tante ak bàjjan yi ñu jàppee la comme seen euh, ñu jàppee comme seen doom tàpp toolu taxaw la ba dootoo gis lenn loo xam ni day wane ni wala dootoo yëg benn yëg-yëg ni ñàkk nga yaay wala ñàkk nga baay yonent bi neen kër gi gën ci kër yi mooy kër yooyu yonent bi nee na kuy taxaw jirim tamit ci lu mel noonu gis nga comme ni ñu koy defal nii rek nee na yowmal man ak yow ñooy làng ba dugg aljanna yàlla nañ ko yàlla may gis nga nag xale yaa ngi noonu di fo ndeysaan di oh. làqatu xaw ma gargombe lañ koy tudde xaw ma nee na làqatu leen bu leen yeex làqatu leen ba làqatu ngeen ah léegi nag mooy nee ko dawal léegi nga seet ku ci nekk fa mu nekk ko koo jàpp rek moom moom mooy seet moom tamit fan ngeen nekk jàpp naa la yow jàpp naa la léegi nag yow la ñu takk sa bët yaay war a wër yow tamit gis naa la ah rëcc naa de rëcc naa la jàppoo ma de waaye yow jàpp gis nga ñëpp waaye gisoo Youssouf fu Youssouf nekk. allahu akbar ah. am na lu xew de. Youssouf. Youssouf foo nekk. Youssouf. Youssouf. Youssouf. alam taray ayna sabaa. Youssouf. Youssouf. Youssouf anamu gisoo fu mu làqatu. ah mbokk yi gisuñu Youssouf de. gisuñu ko de. gisuñu ko de. ay na turaahu tafa ay na huwa Yusuf ay na huwa. fan la Yusuf dem anamu. laqad fattashna fi kulli al-amkina hal dhahaba ila haythu amman seet nañ place yëpp gisuñu ko de nañ dem sama bàjjen yi wax kooko est-ce que yéegul ci kaw étage bi. Yusuf Basma hal ra'ayti Yusuf. Basma gisuñu gisuñu ah, ndax gis nga Yusuf lu xew. Youssouf réer na gis ñu ko ah ñëwul fii de fii de Youssouf ñëw bàjjen ñëwal gaaw lu xew fan ngeen nekkoon ba Youssouf réer laqatu na ba gis gis ñu fu mu nekk xanaa fi seetu leen fépp ah kay seet nañ place yëpp ñëw leen wax ma fi mu nekk. ba xam ngeen Youssouf mooy ndono li fi sama baay bàyyi. Youssouf. ay na ant ah gis nga maire bi de am na lu wax loo xam ne bu ko xale yu góor yi fekk woon dana am na wax bu mu boo xam ne wax na rëcc na ci gémmiñam waaye xale yu jigéen ñoom bàyyiwuñ ci xel. nee na leen Youssouf mooy ndénkaan li nga xam ne moom la fi sama bàyyi Yaaqub. moom la fi sama bàyyi Isxaaq bàyyi. ëllëg mooy nekk yonent waaye ñoom dégguñu ko sax. kële gi man yéeg naa ci kaw étage waaye gisuma Youssouf de. waa ban ban suuf moo làq Youssouf. la ilaha ay yàlla waay ay yàlla allahu akbar na feeñ de yusuf du réer de yusuf mi ngi mel bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñu dóor ko ay xeer boole ko dof boole ko xaj ñu koy sànni ay xeer di ko dóor ak xaj yeeg yëpp mu ni mu ni fompal deret ji walaale suuf rek àdduna tukki